mais yeewu tey. Ah, inter sa xarit Aminata Touré ngay wax. non euh, xam nga làqatu làquma loolu. kooku xam nga junj la rek par respect bañ a tudd tur bi départ ah, yow tudd nga ko. mais mais sama sama xam nga Aminata dama ko xam. sama am nañu relation euh, fraternelle laay wax fraternelle mais politique euh, bokkuñu ci gis-gis lu bari bokk nañuy parti nag mais bokkuñu démarche bokkuñu politique lu bari. bi ngeen di nekk ci parti bi. am ngeen juyoo ci wàllu gis-gis. non bokk nañu ànd jëf. déjà mais bokkuñu woon tendance bu ñuy wax tendance am àdd jëf amul woon tendance mais bokkuñu woon ay groupe bokkuñu woon jëmukaay au delà de pratique yi bokkuñu mais pourtant amoon nañuy relation de respect maak moom ba ñu nekkee APR euh, dinañu fréquenter de temps en temps bu amee ay niveau de réflexion yi ñu war a def dina woo ma dem këram ñu waxtaan baa ñu waxtaan ci yenn affaires yi mais euh, nee naa la moom ak Sonko si ce cas mun amuñu woon point de vie yu ñu bokk ça fait quelque temps Sonko daf ko doon traité de n'importe quoi moom muy traité Sonko de n'importe quoi gisante nañu tey àndante nañu fàtte nañu loolu mais loolu yooyu dama ne situation bi ak foo wëri rek Aminata Touré moo changé wala Ousmane Sonko moo changé. no pour que les deux filent aujourd'hui le parti. non non non non ñoom seen i euh, ni ñuy défendre seen intérêt moo leen amoon kenn wu ci ku ci nekk intérêt am lay défendre dañoo dem seen intérêt moo leen séparé woon tey ñu ñëwaat seen intérêt yi dajalewaat leen maintenant euh, ay euh, Sonko ba muy nangu Aminata Touré am na période yu nga xam ne am na ñu ëppoon doole Aminata Touré jëm ci moom ñëw ci moom. dafa leen dafa bañ ne du leen songe ku jógee ci nguur gi boo fa ñëwee dafa mais ba mu demee ba commencé perte. mu jël ay ñoom Mimi Touré ñoom ay Gagny Sakho ku jógee fenn fii parce que jëlee nañ la sa poste nga jóg récupéré am na benn période yu nga xam ne daf ko doon bañ